jërë ngeen jëf daaray njanja ca Louga la fa xew dara wutale woo ko kook jëfi bàyyi ma ubbi l'observateur benn sëriñu daara bu ñu naan Cheikhouna Gueye moo fa jàpp juróomi ndongam yu toll ci juróom-ñetteet jàpp fukki at ceene leen Fallou Loum Fallou Ndiaye Baara Ndiaye maam Cheikh ñan ak rakkam ju ñu naan maam Xaadim Ñang ñoom ñëpp la ñu fekk sëriñu daara ba jénk leen li ko feeñal l'observateur nañu moo di lenn ci askan wa dëkkee ca Gét Ardo ñoo gis benn xale bu ñu jéng di dox di direeku ak di watatu ndax jéngu yu diis mu ñëw ñaan leen ndox mu mu naan nit ñi gis ko seen àdduna tukki ñu jël seeni téléphone di ko foto ak di ko filmer dugal ko ci réseaux sociaux yi jëf ji wër àdduna ci la doxee ba ne toq ci nopp procureur bu tribunal grande instance bu Louga moom it mu ne waa gendarmerie bu Koki nañu ko enquêtal yëf yi ba xam mbir yi nan la demee ci la commandant Diallo ak i gaayam jëkk di ko topp ba yegg ca daara juñ naan daaray njañ ba ñu demee fekkaat nañu fa yeneen xale yu ñu taxawal jéng leen takk leen ci ak weñ gu nekkoon ci seen wet bi ko gendarme yi gisee laaj sëriñu daara bi li mu leen wax moo di xale yi dañuy faral di dawee ci daara ji moo tax ma jéng leen l'observateur nañu muy moom sëriñu daara daara ba Cheikhouna Gueye di soudeur bi doon defar jéngi Pape Diop ñoom ñëpp la gendarme ya buub yóbbu ndonga ye ñu nit am na ci ñoom ñoo xam ne seeni waajur teg nañu leen loxo ci ñoom ñaari jigéen ña ca ñoo nga ñu téye ci gendarmerie bu kokki tey jii ci altine ji leen war a defeere ca parquet bu tribunal les éco fu nekk pression fay jógee jëm ci gendarme yeeg procureur bi ngir bëgg ñu libérer sëriñu daara bi vox populi nañu moom sëriñu daara boobee ay nañ ci ak moom moom sëriñu daara bi ak soudeur bi doon defar mënod yi ak ñeent ci way juri ndongo yi ñu jéngoon gendarmerie bu kokki teg na leen loxo garde à vue ba fas yéene leen a jébbal procureur bi tey jii ji ki def loolee ay taalibeem libération monstre la ko tuddee juróomi ndongay daara yi ñu ceene woon nañu leen ceene woon ak li ñu leen ceene woon journal La Tribune xëy na dajale lépp photo ko tegal ñu ko ci xëtamu njëkk boole ceekit di ñu nittali ni libéré ko jamono ji nag ma nga ñu téye ca gendarmerie bu kokki ñu bàyyee ko kokki dem ca kayaar ak coow la fam journal l'observateur mi ngi ñuy xamal ne dafa am benn usine bu ñu naan Barna SA société espagnole la bu bëgg a sampe fii ci réew mi ca kayaar la nekk mu di projet boobu juróom-ñaari milliards la ñu ko taxawalee farine ak huile de poisson lay defar ba ñu yëgee ne am na ñu dëkkee kayaar ñu àndul ci boobile projet ca la maire bu kayaar Alioune Ndoye jukk ànd ak askanu kayaar ñu amal ab marche keroog samedi ngir doon wane ca marche ba ànd ànd ci projet bu usine Barna Sénégal askanu kayaar wi ak seenub maire ne li tax ñu soxla projet bu nu mel moo di bu sottee ñetti téeméeri doomi kayaar ak juróom fukk danañ fa mën a liggéeyee dina taxit goney dëkk bi am ci lu ñu jàpp ba seen xel dootu nekkati ci Barcelone wala Barsàq mu di immigration clandestine boole ceekit dina tax ñu tàggoog jën ñi nappute duñu leen soxla di ko tuuri ci géej gi ne bu boobaa usine bi lépp lay jëndaat ci ñoom liggéeyaat ko dara dootu yàqooti li yàqu ba yegg ci yaxet moo di àndum Abdoulaye Wade ak Omar Sarr Omar Sarr ak compagnie yi tënku ci alliance suqali Sénégal le quotidien nee nañu ñu ngi corriger Abdoulaye Wade leetar bi góor gi génne di ca xamle ne Omar Sarr bokkatul ci biir parti démocratique Sénégal bàyyi na gaa ñi nee nañu leetar boobee amul benn solo te Abdoulaye Wade bindu ko ay nit a làqatu ci ginnaaw Abdoulaye Wade di ko signalé ay décret yu tegewul ci yoon maître Alaaji ak ñi mu àndal ci suqali Sénégal ne bépp jéego na ma moo di Abdoulaye Wade dem na seeti Pape Pape ba noppi dàq Omar Sarr Modou Gaye aw turam wër na àdduna ubbi l'observateur benn doomu Sénégal la bu nekk Italie benn bés muy dox ba for benn montre Rolex buy jar 19 millions wër boromam ba gis ko delloo ko montram Modou Gaye ne waa l'observateur borom montre bi bi mu jotaatee montaram gëmewu ko woon 16 millions la yëkkati may ma ko